képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bii rek di Mbacke Kadior TV ci dana ko am en exclusivité xam ne jamono ñi xam ne Sonko mi ngi école primaire ci laa lakkoon drapeau France lakk googu moo lakk tey seen yëf seen bagage yi ñu am waaw kon nag bu ñu may France ñu continué waat ñu